yëf yaa ngay wéyan yi ci dëkk bu sell bii di tuubaa ginnaaw bi na jàllee ngir ab jàppante bu metti ci diggante ñaari dawalkatu charrette ba kenn ki rey moroomam moom lañu nemmeeku waat ci benn mayga buy wuyoo ci turu Issa Mayga ay atam war a toll si ñaar fukki at ak juróom ñu daal di koy agressé talaata bi ñu génn ca gaaraasu Daaru Muxti bi ay 22h jotee Babacar Daabo di njiitam mi ngi yëkkati ay kàddoom di ñu xamal yëf yi ni mu demee. non Fatou man wax dëgg yàlla damaa génnoon am fu ma demoon Aliya. ñoo ba corniche ba leen ñu woo ma ne ma sa booy bi dur nañ ko ñu ko dur aussi dañoo daw ma daal di jël oto ñëw fekk booy baa ngi tiit mbooloo baa ngi ko wéer léegi ma ne lii lan la ni ñu ne ñi ko dur daw nañ léegi nag eh, ñu woo sappoor sappoor daal di ñoo jël ko ñu yóbbu ko hôpital jannatu bi ñu demee hôpital hôpital daal di koy bàyyi foofu ba suba ñu ne yóbbu leen ko njaaram ma yóbbu ko njaaram dugal ko ca rajo fay 35000 fay ambulance bi 10000 mooy 45000 ñu daal di ñëwaat bi ñu ñëwee ñu bàyyi ma ba ay 18 heures waa hôpital neen ma léegi boo amee ay yiitee mën nga koo dox ma dem ba ñëw fanaan ci hôpital bi suba gi ay 8 ñu jox ma ay kayit nee Issa décédé na kon affaire bi doon na loo xamante ni métti na ma trop métti na ma trop Issa bi mu fi nekkee musta am histoire ndax Issa man yor naa fi ay boy yu bëri ci sama place mais ku mel ne Issa musuma ko gis ndax Issa vraiment musuma def leen lu ma naqari waa hôpital gamuñu ndax affaire bi cour la jaas daal lañ ko teg police wax dëgg yàlla def nañ ci li ñu war a def ndax jox nañ ma kayit yi ma dem tribunal daf li ma war a dox yëpp police ma wax dëgg yàlla daf nañ ci li mu man yëpp police moom gëm naa parce que loolu lañ ma wax nee nañ ma enquête bi nañ ko topp ba jàpp booy parce que nee nañ ma Touba du Touba du fenn fenn foo rey rek il faut di nga feeñ parce que ñoom dinañ def seen enquête amali papa moo yàlla def na dundul yaayam mooy dund bi ko woo ko programme nee na loolu la yàlla dogal lu yàlla dogal loolu rek mooy am mais léegi nee na ñun ñu fi nekk lu ñu def rek loolu lu ànd na ci quoi amagul soxna ndax bi ma ñëw la ñu doon waxtaan ci loolu nee naa ko léegi dinañ taxaw pour nga am soxna parce que man ren gi laa jël soxna nee naa ko léegi man dinaa taxaw pour jàppale ndax nga am soxna Babacar Dabo ba tey si ay kàddoom mi ngi ñaan ñu xoolaat bu baax kaaraangeeg réew mi rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba kaaraange gi wax dëgg la war nañu jóg taxawaat bu baax parce que lii vraiment métti na loolu parce que borom sareet yi dañoo xaw a ñàkk tegin ndax ñoom ma léeg-léeg da nga yëg saa ñuy yebale di la kon vraiment kaara ngi war nañoo bu baax a baax di sécurité askan bi ci am rek mooy loolu parce que yàgg nañ jot ak borom sareet ci loolu ñoom nee nañ lii dina mas a am parce que borom sareet yàgg nañ dugg ci meegay di leen créer problème jot nañ parce que bi nga xamante ne ak affaire yoo xam ne dañ ko jënd gone yi te sama place mosuma ci nangu affaire yi xeex boo amee histoire boo ñëwee dama lay baal nga dem parce que bari nañu sama xaalis ay yoon yoon man topp ma leen parce que man damay toujours damay fagaru sama bopp bëgguma problème moom faatu na fi mu faatu dëkk bu baax la dëkk bu sell la mun nañ ko jël yóbbu ko fenn wax dëgg yàlla dañ koy suul fi parce que fii baax yi ak jullit yi baax ñoo fi nekk mun ñu ko ñëpp d'accord nañ dañ koy denc fii. mu mel ni ab challenge ni rey yi di répété woo ci réew mi ba tax askan wi amee njàqare lool ak tiitaange bay ñaan njiitum réewum Sénégal mu jàppale leen ngir yokk kaaraangeeg réew mi ba yu ni mel mën a gaaw jeex ci suñum réew.